usine bi lepp lu mu sa liggéey mu ngi koy jaay kon moo ko xaalis boobu ñun lu mu liggéey dañu xam fa la jaar jël suñu responsabilité ñoo fi tey pour dénoncer tey situation yoo xam ne moom la ñuy dund dénoncer tey situation yoo xam ne moom la ñu famille Seydi teg yaa ngi dégg tey fu ñu toll du yem fii rek tey fii commencement la un père de famille qui travailler assurer la vie quotidienne de sa famille bu ñu ndékki sax tey c'est un problème direction bi teg na ci loxo suñu IPM à hauteur par exemple nous à 59 millions. et retourner sur salaire ils ont un non versé. nous avons prévu d'aller à Dakar faire un sitting faire un grand rassemblement à Dakar Et c'est suñu que lañ ci fait. à l'inspection du travail nous nañ fait ay mais finalement nous avons waaw ñun tamit ñu délégué ci boppam bind nous avons fait euh, ay mémorandum adressé ko. ba présidence l'Assemblée nationale tous les ministères concernés nous avons leen wax leen nous jafe fait un na dinañ ñu wallu mais boobu léegi dañoo constaté benn mutisme total.